yëpp yëpp aw tiis la de. wallaay démb Sénégalais yendoo nañ xol bu métti. mu lay saf batalo Joola. wallaahi. xol bu tiis alaaji. métti. xol bu métti. Oh. Hmm. kay tey laay gis liste bi. Hmm, Mantoulaye. ñi jot a identifié. foofa na. Hmm. une minute rek. ma nuy leen ziar leen. Mhm. baalu ñëpp àq. Mhm. baalu Sénégal yëpp àq. Mhm. baalu Sénégal àq baal Sénégal yëpp àq. semaine bii walla ci weekend bii. sama tur fees na lool. dëgg la ci lu juróom-ñeenti tur seq. jàppewuma ko nattu dama koy sant yàlla. ndax man am naa tour am tur ndey ak baay. Mm-hmm. sama doom Mamadou Moustapha Diop la tur comme ni ma tuddee Mamadou Mansour Diop. Mm-hmm. am na tur am na tur yaay. ki ma àndaloon defi njombe am na tour ndey am na tur baay. Mm-hmm. moom am na tour ki dee ci seen loxo am na tour am na tour ndey am na tour baay ça fait neuf personnes. waaye yàlla dogal na ñépp benn tur la ñuy tudd mooy le fils de Mansour. mën na jàppewuma ko nattu. Mm. dama ko jàppe ak sant yàlla. Mm. parce que population bu Sénégal bu amee dix sept millions personnes. Mm. dix sept millions. nga juddoo ci benn village bu tuuti. yàlla di la dimbali ba fu ñu la tuddee senegal ñëpp xam la. ba bu kenn defee njombeem sax bu ñu koy identifier identifier ko à ton defe naa ni liggéeyaloo yàlla wala nga gën waa Sénégal wala nga lebal leen. li tax fu ñu la tuddee ñëpp xam la bu la yàlla defalee sutura defal la teraanga nga sos kër sos njaboot yàlla may la fukki doom ci biir doom yooyu mu la may ñëpp nekk ci sa waaw ku nekk di jàng ngay def ci moom yar bi sa baay defoon ci moom yàlla génne ci kenn ku la të lu mat fukki at nga joytu ko képp koo am kenn kooku la të bu defee njombeem bu fekkee dellu woo ko ci nattu yi yàlla di nattoo ab jaamam. Mhm. ma xam ne doo jullit doo gor. Mhm. assumé naa toutes mes responsabilités que xale bi def li bon et mon fils aîné waaye moom rek mu nekkul ci samay doom yi may contrôler comme ni ma sama papa jàngale woon yar ma def ci moom yar boobu damay nangu ne sama doom la mais ma boole ko ci nattu yi nga xam ne moom la ma yàlla nattoo. Hmm. ba mu ñimee def man bàyyam lu mu ñëwut a def. Hmm. ba muy dem foo xam ne rakam du fa dem amul kenn ku fay dem samay doom. Hmm. kon damay jàpp ne nattu la. mu ma yàlla teg. ma continuer nag di demander la justice. que chacun assume ses responsabilités il a 22 ans. que justice fait son travail. ma continuer aussi di prone toujours que faw ñu delloo si waat Sénégal man gënuma kenn sama doom gënul kenn bay def naka su noonu te dara du ko ci fekk maa ngi demandé justice def liggéeyam maa ngi demandé ñu delloo soit peine de mort mais maa ngi demandé itam ni nañu ma baal ma baal ñëpp itam baal naa ñëpp mm. parce que tax ma baal naa ñëpp mooy Mansour day day liggéeyi wàcc dem këram toog uuf ay njabootam nekk dans de très bonnes conditions alhamdulilah mm. waaye nag doom ju fàqee ci man itam mm. man may bàyyam mm. waaye doom joo xam ni dëkkul ak yow nekkul ak yow te def nga lépp pour moom <laughs> loolu nga man moom bu optee leneen nag ñu askanala la ko nangu naa méréew ma kenn nag lu ma ci waay tudde méréew ma kenn waaye dama ko sant yàlla ndax gënuma waa Sénégal lu tax fuñ ma tuddee ñëpp xam ma liggéeyalu ma waa Sénégal liggéeyalu ma yàlla lu tax fu ma ñëpp xamee su ma amee benn doom bu mel noonu dama koy dugal ci dàmbak nattu yàlla ndax innama amwaalukum wa awlaadukum fitna ma nangu ko te sante ko yàlla bu baax te demander justice def liggéeyam demander itam ñu delloo si peine de parce que nit di fo du fowe jamais ak bakkanu jàmbur. ngeen baal pense que jarul sax jarul sax commentaire en foofu parce que alaaji mm. li mu wax tey njëkkee na ko. wax na ko fu ne wax na ko avant fii ci tës bi. wax na ko fu ne. yàggul euh, chimère. chimère loolu bu buñ ko mënoon am rek yàggul toog na fii moom alaaji. wallaahi ne jël na doomam yóbbu. gendarmerie yóbbu gendarmerie. tës bi la toog di ko wax yàggul. Mm-hmm. wax na ko wala waxu ko boo amoon loolu rek nga may ñu ko rek. ay ay weer ginnaaw la je pense. yàgg na ko wax may ñu ko yàgg na ko jàmbat yàlla mi ñu tim xam na loolu. loolu loolu moom lu na ko fu ne. lii rek moo ci suñu commentaire. nekk jàmbatee na ko fu ne waaw te loolu moom. bu la ko ñëpp seedalee moom. daanaka yow moom sa responsabilité dégagé nga ko. Hmm. dégagé nga ko. koy def jàppale woo xale boo ko juree. ajali ko màkk sax. ngir mu baax. alaaji ajal na màkk 2015 doomam pour mu baax. alaaji day toog fii ne ma sa rakk ja génnee naa ko. ma ne ko lu mu def ma lii la def maa jël sama oto yóbbu ko gendarmerie ban ma ko kalaamee alaaji moo njëkk nekk victime doom ji. ci mhm. leneen ak leneen ak leneen. loo xam ne mënuñu mhm. ko wax. mais man dafa am loolu. donc jarul sax ñu ci dama ko la na rek moom jóoba juba jaanam wàcc na. ànd nañ fii ci otoom ñu taxaw fii di waxtaan ci bopp koñ. ko jël sa mhm. ci bopp koñ. ma ne ko waa sa waay dama góob mu ne ma déedéet parce que dafa am oto bu ma doon jënd pour Moustapha laaj ma oto bi lan la. Dodge mi ngi noonu yow gis nga oto bi. fekk naa lépp. bu baax ba muy mottali waa ji xaalis bi ñun ñaar ñoo toog loolu kenn du ma ko nettali man maa ko. ko bergerie d'une dizaine de millions. dama ne. mais ku bëgg bon nag mënoo ci ci dara dama ne. nattu bi si cinq millions six millions pour jox ko nit. muy def la navette entre biir mbuur ak suma nag yooyu te mën ci tedd. wallaay pour am si lu mu jàpp rek mën a bàyyi yenn yi. kooku alaaji gàcce ngalaama waxuñu nag yeneen yi waxuñu nag yeneen yi mais gàcce ngalaama tey. yal na yàlla may lu xolu muñ rek te ñëpp mm-hmm. xam nañ ne. Ah, yàgg nañ ko wax ci tës xale yi. wallaahi ñooy nattu seen waa. li nga xam da ngay def loo mën nga war def rek def. gàcce ngalaama ku la fekk. déglu la alaaji waxoon fan yee ci déglu. tout le monde loolu koy def jàppale woo sa jàppale nga ko de. baax na. waaw baax na. jël ko yóbbu ko ñu gars yi redressé la ko boo gën koy bàyyi ci kër gi. jooyloo sa yaay rek. baax na. <laughs> yàlla musal ci jooyloo suñuy ndey. dafa muy mujj. <laughs> baax na. wala doyen waaye waaye lu ko dese la. donte lay. dañu bàyyi nëpp nëppal doom. Mhm. Mhm. baax na. Mhm. dañ ko mooy dëgg de alaaj doom bu tooñee da teg ci yoon. Mhm. mooy yoon de doom du fooy way juróom. Mhm. wallaahi dëgg nga wax wallaahi dëgg nga wax alaaj. na dem bii ci mujj bii bii maam bii. Mhm. sama doom yàq na oto jàmbur ba nëpp bëgg a daw gaañu ci dem hôpital ànd ak ay copain am ñu koy nëpp nëpp li jéem a jël affaire affaire yu guerrier. bi mu ko déggee sama kër damaa taal sama oto ñu fekk hôpital ba mu nekk. booy bëgg ko génn rawale ko mën leen aw aw leen sama koo ba noppi. Mhm. taxaw fa woo ki mu yàq otoom. woo gendarmerie. ñu jël jël ko jël ko yóbbu. Hmm? billaahi wal azim bii avant may ñëw fii avant may ñibbi si. ñëw jël ko yóbbu gendarmerie mën leen na fay ki mu yàq alalam. Mhm. parce que fekkoon da ko yàq toog. ñu négocier ko mais da koo yàq bëgg a daw. ba noppi jëli ak gàngam. ay copains ñu koy jéem a protéger. ba ni booy booy gàngi xoolal ku ni ma peer ma yow dugg ci sa ba kenn ni ma peer. yàlla nga boole ko. waaw taxaw du génn ci hôpital bi du bouger yow taa du ko bouger. woo ba woon oto bi ñëw man ko dara fay woo gendarme ñu ñëw ñu yóbbu leen. kilifa da ngay doon responsable. léegi anamu. ma la ba ah, ci loxo gendarme laa ko bàyyi di ba ñu laaj na balaa kay laaj mu tey. barke salaatul faatiha bii nga ci mujj bii. non da nga koy wan yoon bi donte après di nga dem. c'est vrai que mais da nga koy wan yoon bi. du dawal moto. parce que bàyyi ñu moto su ma tàggoon dawal moto bi mu ko oto jàmm. bu ko bëggoon toog ma fekk ko fa dinaa négocier mbaa ma fayal ko. mais da koo tàggu teg diil ànd ak ay copain daw. da koo tàggu da koo mbëkk yàq alalu waa ji ba noppi. teg gaañ bi daw daw dem. non da nga koy wan ne nii la nii la ñu yare. jéem bi alaaj noonu lay doxalee xam naa ci lu bari. booy yar da ngay yar fekk ay moto ci weeru hôpital ma ni waa jaa ngi fi.